li ma ci wax rek mooy réew mi ku fiy dugg ak nga fi génn dana la identifier euh, bés bu yàlla sàkk am ñu bëgg dugg ci réew mi ñu tere leen fi dugg la ca gën a siiw mooy peut-être aéroport waaye même bu dul aéroport ci frontière terrestre yi yu jógee Gambie yu jógee Guinée Bissau yu jógee Mali yu jógee Mauritanie bés bu yàlla sàkk am nit bëgg fi dugg jaar ci suuf bu fekkente ne këyit yi mu ñu wan doyul dañ koy wax du dugg ci dëkk bi dañu nekk aussi ci environnement boo xam ne bii Sénégal dafa signé ak ay réew li ñuy wax libre circulation des personnes maanaam nit ñi nga xam ne dëkku ci yenn réew yi ñu wër am nañ sañ-sañ dem ak dikk ci Sénégal nu leen neexee comme ni sénégal yi amee sañ-sañ dem ak dikk foofu waaye am sañ-sañ dem ak dikk du ne da ngay ñëw te indi liy firnde ne fii nga jóge ak dëkk bii nga dëkk te li ma wax léegi ci wàllu wii nga xam ni moom lañu xam nee naa la ci weer yi ñu génn buñ ko calculer am na ñetti kaa yoo xam ne yii xale yi ñu jàpp la rey ci reyin wu ñaaw benn rek sax ëpp na waaye ñett yi li yàlla def mooy jàppaguñu kenn ci kon moo ko def gannaaw jàppaguñ ko mënuñoo wax ni sénégalais la wala dub sénégalais donc buñ ci jàppoon ba xam ne dub sénégalais peut-être boobaa mën nañu wax li nga wax waaye jàppaguñu leen ñu ngi leen di wër du ñàkk yàlla mën nañu jàpp leen kon euh, loolu ci wàllu sécurité li muy indi rek mooy en naa ñuy xam ñaan la nañu suñu dispositif sécurité yi kan moo fiy dugg kan moo fi génn ñi fi nekk ba pare ni ñu nekkee li leen wër nañ gën a renforcer seen sécurité police ak gendarmerie loolu mooy seen rôle ñi ngi ci ñu ngi yokk limu policiers yi ñi ngi yokk limu gendarmerie ñi ngi yokk limu commissariat yi ñi ngi yokk limu euh, caserne yi rien que euh, ren 2018 bii daanaka ñi ngi xaar lu toll ci ñetti junni policier ak gendarme bokkut ak junni auxiliaires yi nga xam ne bëgg na recruter muy ñeenti junni ñëw fekk li fi nekkoon ñu renforcer ko ren déjà diggante gendarmerie mu ngi prévoir def ci biir Sénégal lu mat fanweeri brigade police également am na programme boo xam ne bu am solo boobu fukki commissariat yoo xam ne bëgg nañ ko réaliser rien que ren peut-être que mën na ko ëpp mais déjà rek ci banlieue bi am nañ fu ñu identifié pour def juróom-benn commissariat yoo xam ne yi léegi ñu tàmbali liggéey bi kon loolu dafay lu am solo loo xam ne lii réponse la pour que nit ñi di gën a gis police ak gendarmerie ci li leen ci seen sécurité ndax ñu mën a nelaw ba yandoon fi bi nga xamee ne bi coow li am na déjà euh, woo naa euh, au commandant la gendarmerie ak directeur général la police euh, nationale ñu toog ne nañ xool yan mesure lañ mën a boole suñu doolee pour que li ñuy wax fexe ba tiitaange ñu yóbbu ko ci camp malfaiteur yi juróomi fan yi déjà ñoom bi nekkee ci terrain bi yaakaar naa doxkati guddi yi ñu ngi leen di gis interpellé leen lu mat junni nit déjà ci juróomi fan yi am na ñun ci téye am na ñun ci téye façon façon bu ne donc téye nañ ci sa loolu dul opération boo xam ne nekk opération bu ponctuelle dafay continuer en non seulement day continuer mais ñoo ngi xool sax naka lañ ko mën a def bëccëg comme guddi parce que li ñu war a contrôler ci réew mi bari na au-delà de renforcement bi euh, nit ñi bëgg nañ di gën a gis police ak gendarmerie day gën a dalal seen xel. loolu aussi li ma ci waxoon du caagee ne dañuy signer décret wala signer arrêté pour wax borom kër gu ne la nga war a def. jàpp naa ne kenn ku nekk ci ñun xam na li war ci njabootam te bokk na ci li war ci njagootam mooy gunge sa doom boo koy yónni yàgg ngaa wax ndax ñeme nga fi wala ndax xam nga fi loolu du lu bees du terme yu génn tey yàgg naa génn kaa mu yónni la béréb sàngam ndax xam nga fa wala ndax ñeme nga fa loolu lu ñu xam la ci suñ ci suñ jargon la tax ñu ko daan war ndax xam nga fa wala ndax ñeme nga fa mooy jàpp ne est-ce que mën naa demal boppam donc loolu aussi lu ñu war a bàyyi ci li ñuy def de tous les jours xale war na koy war nañ koy surveiller ci biir kër gi war nañ koy surveiller ci biir quartier maanaam bu génnee kër gi te loolu la mu war mooy dëkkandoo yi ak ak ak parents yi bu naree génn fu génn quartier bi également war na am euh, nit ñi de façon générale kenn ku ne boo gisee xale boo xam ne jàpp nga ne àndut ak kenn yàgg ngaa romb xale nga xam ne kii dafa mel ni dafa réer nga ne ko koo ànd loolu lu lu yàgg am ci société la donc loolu aussi il faut ñu dellu si à ses xale boo xam ne bii tey dafa war a jàngi fu sori ak ak këram war nañ ko bàyyi te xamuñ fu muy dem loolu du lu ñuy bind di décret di arrêté dañu bëgg a rappeler rek borom kër yi que dafa am lu leen war ci seen seen seen seen i njaboot également état bi am lu ko war te nag bu ñu kenn ku nekk ci ñu defee loo war yaakaar naa ne problème yooyu léegi ñu mar ko mën a dépassé